ku baax ki nag boo xoolee tawféex ji ko sunu borom defal ci moom tawféex ji suñu borom defal ci moom yàlla defal ko ci sangam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa feeñ ci biir ak njabootam tawféex jooju dafa dem ba ci biiru njabootam wa alihi wa sahbihi wa faddili kulliyati bil muntaqal mufaddali bi mu ñaanalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak i saxaabaam it daf ko dafa ñaan yàlla mu gënal léppam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo xoolee muntaqa ji danga gis ni suñ boroom defal na ci sëriñ bi ci jataay bi jataayam bi mu toog ngëneel yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ndax liñ doon waxtaane léegi boo ko seetloo cheikh Mouhamadul Mountakha def na ci liggéey bu am solo moo xam nit ñi yëg ko moo xam nu ñàkk ko yëg mooy ci ñaan yi muy joxe nit ñi di ci ñaan ak loo xamante ni mën na koo dox doxu biir te nun ñëpp duñ ko yëg duñ ko xam ba tax ak dal am nañ ko soxlaa te loolee yi tamit jéego la boo xam ne ndax léeg-léeg biir dana tëdde noonu mën na caa doxe yàqoo ba faw wala yàq ko ca yàqin woo xamante defar ko duutul yomb te day mel ni loolee dafa mel ni moo moo doon tiim réew mi te ku ku ku xam ku topp réseaux sociaux yi xool nit ñi ni ñu doon waxe ak ni ñu doon defee day ñi ciy yéekatu fitna ak ñu ciy taalkatu fitna dafa bari woon bari goo xamante ni ñu ngi doon rëgg nit ñu bari di leen jëmale ci loolu waaye boo xoolee nim daa dee sédd guy loolee mbaaxul yàlla la yërmande yàlla la taw féexi sunu boroom la taw féexi mag ñu baax ñi la taw féexi ñaani jullit ñëpp la waaye cheikh mohamadul mën taqaay taxaw na ci taxawaay ci zaahir ak ci baatin boo xamante ni ña xam moom xam nañ loolu lépp nag sëriñ bi ni nga xamante ni noonu la ko suñ borom nangule te defale ko noonu tawfiq ci digganteem ak moom defal ko tawfiq ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa tawfiq jooju it noonu lay feeñee ci njaboot gi mooy tax loolu it noo koy ñaanal suñ borom fiq aw fanam yokk ak wéram te ñaan yi mu joxe ñu di bàyyi xel bu baax suñ ko defee ba noppi nu ñaanal ko ci yàlla fiq aw fanam yokk ak wéram te saxal tawfiq yooyu teñ na ca biir ñaanal ci sunu bopp ak jullit ñëpp nag te jullit bu ne it war ngaa am loo xamante ni sam xel li ma doon waxtaane léegi ci pas-pas war na la koo jox ndax sunu ngëm su wéree fii ne ku yàlla baaxal rek nun ñëpp moom mbaax gi jullit ñi ku ci yàlla defal tawféex rek jullit ñëpp la ko defal gis nga suñ cër yaram yii cër bu ci am tawféex rek cër yëpp ko am waaye cër bu ci am mettit rek yëpp koy daal di yëg njamu ci gën a tuut su nekkoon ci sa bakkan bii sa yaram bi fay ànd tànk bu sa bët doon metti doo tal dara bu sa tànk doon metti doo tal dara bu sa boo amoon loxo tey doo dara doo tal lekk doo tal naan doo tal def dara kon loolu jullit ñi war nañoo xam kum man di doon waaso wu mbokk tariqa bu mbokk kilifa diina gu man di doon ba ca jàngu ba sax lañuy wax ci lu baax te mën a njariñ nit ñi war nañoo bàyyi xel loola war nañoo nangu it loola loolu mooy waru garu ab jullit rawatina nag sa mbokkum jullit rawatina nag kilifa diine yi kii lépp loo xamante ni ña ngi koy taxawee di ko dox ci lu baax moo xam ñu yëg ko moo xam yëguñu ko ndax léeg-léeg kan nga gis ku naan dañoo war a wax dañoo war a wax dañoo war a wax fekk ne xëy na lañ war a wax wax nañ ko bu dee lu ñu war a jëf la nañ ko te yow man ngaa bañ a yëg loola. Mm. xëy mbir ma jërutoon àggutoon yëkkati kàddu te yooyu yëpp it yii di xew yëpp dala ci indil firnde ndax ñu bari dañ doon wax naan nañ wax nañ wax nañ wax nañ wax moo ne boo xoolee day waxi kaw bariwu ca waaye lépp it yàlla def na ca tawfiq tawfiq joojee nag tawfiqi ñaan yàlla sunu borom ndax yàlla moom moo mën lépp te ku jëmmale sa yaakaar ci moom te muy dëgg sa yaakaar du tas mukk kon loole bokk na ci li waral loolu kon sëriñ bi taw fii xam ji ko yàlla defal ci diggam moom defal ko ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it dafa feeñ ci nun ñépp njabootu ak njabootu ndax taw fii nitu noonu lay làmboo day day day day njabootu ruuw bi njabootu xol maanaam njabootu ak njabootu ruux ñépp lay làmb kon loolu noo ciy sant yàlla sunu borom bu baax te di ko ñaana yàlla yàggal ko te may ko ak wér